Ah, léegi maa ngi am benn taxi driver bu fi nekk taxi driver bu fi nekk ah, xaaral ma laaj ah, taxi driver boobu noonu naka la jiite Banjul ak Banjul démb ak Banjul tey asalaamualeykum suma mbokk bu baax bi di la laaj yow. taxi driver nga Ta, taxi driver la kan. ñaata nga day versé da sa bop nga day versé wala dafa am koy ligéyal man sama bop la nek di liggéeyal nag macha allah gis ngeen lolu kon teg len sen baram ma waxtaan ak ndaw bi ni nga xamné judu Banjul la bañ koñ nga judo ak naka nga tuda ma ngi tuda Abdou Aziz Cissé ma ngi judo Banjul number 20 Allen Street ah Abdou Assis Cissé naka nga gissé parce que dañ dé wax ah, waaw project yi ni tali karo bi ak ni Banjul rafetee ni macha allah dañ dee wax ne former président Yaya Jammeh moo ko liggéey ah man loolu daf ma dee jaaxal waaye yow ndax loolu dëgg la ndax du dëgg. ah well man tam dama dégg gars yi du wax wax boobu noonu waaye man su fekkee loolu dafa dee man I cannot believe that man what I can believe is that nguuri Adama Barrow moo nekk di develop because of man Banjul laa juddoo Banjul laa yoroo te pax bi nga naa gis nii ñun fii lañ daan foyee fii lañ daan nappee goldfish waaye xale Banjul tey kan mënu fee nappee goldfish Yang ngay ubah, bu baax mhm. waaye su passé yàlla yonente kalau ni ngi tey xoolal mhm. pax bi nu old mel mhm. bi dafa set all praise will go to Adama baro because of li neko time ya Jammeh ñu nekka nañ fi foofu moo daan twenty eight to 29 years ñu ngi Banjul Banjul amona dia dee wasa time nawet pour nga dox sa buro problème la right now tabaarikàllaa macha allah Banjul for dem lagi, su tawee sax di nga sol so Adama baro ñun moom waa Banjul ñu ngi wax ne gars ñu santa neko ne bu ko I ay affaire politique man affaire politique xaw ci dara nak waye ku dee ak sa bàmmeel te olof ndia mu ne gis wéedi bokku ca te ñun na gis ci Banjul may lu adam baro di def te doy nañu dëgg dëgg wax ne yalla adam baro ñu ko gëm du ko sant. man man mi di wax ak yoni New Street la euh, jëm Sénégal la judo waye ma ngi yaro New Street seven New Street fala yero. pax bi ni ñun dañ fi daan difidawale euh, di fi gal di fi gal si pax bi in those days time jawara nga xam ne pax bi dafa setoon wecc ñun fa lañ daan dugee ba pare suba dañ dee dugal si pax bi di dugal suñ loxo yi di for ay five bu tuut ten bu tuut bu tuut onasaan ga waaw si pax bi waaye léegi loolu kenn mënatu ko te gis nañ ne président Barrow bi mu ñëwee bi mu toogee changes bi mu am bi mu def biir Banjul fii gis nañ ko waaye tey man su ma waxee dañoo ne Dahaba ba que dafa support président Barrow moo tax muy wax loolu moo tax ma ne tey damaa dugg biir Banjul waxtaan ak waa Banjul yi weedi gis weedi gis bokkut bu ko defee ñu seet Banjul ni mu mel pax ni niñ mel ak liggéey bi ni moo góoyee on boo seet seetloo Grand Street nga dellu si gannaaw benn tey ñi ñaangee liggéey kon dafa mel ni liggéey bii ni balaa ñoo wax 20 21 liggéey bii di Grand Street moom dina pare te kon ñu bari dinañ pare. sa simal sa dafa sori. man lu ma dee moo nekk fii bala ñoo ne ay dixième ba soo ñëwee Banjul da ngaa regret da moo tax nga génn Banjul of right now waxuma la Grand Street rek waaye soo demee Afdahi soo demee Banjul South Banjul Central Banjul North foo dem liggéey baa ngay dem man fu ma juddoo Allen Street right now concrete bi agana from cat to cat Banjul whole Banjul yëpp ñu ngi koo defaraat bro well definitely waa Banjul ñaak amuñ dara lu ñëw waa this government na di leen gërëm di leen santa di leen wax ne tamit waa Banjul ñu ngi fi nekkal gars yi te nañ taxawal yuuti tamit nañ taxawal yuut yi tamit bro loolu tamit baax na trop. gis nga Boy Cissé su ma dinaa la fa dog euh, ngir Banjul moom euh, ndaw yi nañ xam ne nañ xam ne wallaay nañ xam ne am nañ ki nga xam ne mooy président boro suñ jàppante ak président boro duñ ko ré duñ ko réccu parce que euh, dama ne dañ dee wax boro li liggéey ni projet gi Yaya Jammeh la ndax nit ñi duñ dee fàttaleku ne Yaya Jammeh ba mu toogee 1994 ba dem ba 1999 développement boo xam ne def nañ ko fi dañ daan wax ne projet gi Sir Dawda Kairaba a la kon léegi tubaab lu mu xeesees foog naa dañ ko war a bàyyi xeesaayam kon projet si projet si Adama Barrow moo ko sign. non man si man sa bro man loolu laa dee wax man su ma dee wax su dee dégg nit ñi naan yee projet gi Yaya Jammeh leen loolu loolu mënut a am. parce que ñun tamit Yaya Jammeh ñu ne fii daan nekk di complain Banjul dafa tilim Banjul dafa nii. waaye right now Adama Barrow bro waxuma la even five years but just three years Banjul mel ni bro kon kooku si dama daan order next five years Singapore bu ñu yaay doon wax dinañ ko si Adama Barrow jërëjëf incha allah jërëjëf Cissé ah jërëjëf si yan na la yàlla musal si accident yan na bu sa moto bi paan yan na bu sa moto bi paan yan nga toog ba jëndaat beneen moto parce que ah, sa diggante ak yàlla ak sa tray baamel loolu nga wax kontaan nañ si bu baax. fii laa yoroo xam naa Banjul bu baax kenn du ma wax Banjul fii laa juddoo fii laa yoroo amul dara lu nit mun a wax. kon jàppaleen si Adama Baro. Adama waa Banjul ñu ngi ko gërëm di ko santa fàtte wuñ ko gannaaw te saa yu ñu jëlee nañ ko bëgg di ñaanal. jërëjëf jëf jërëjëf ah mbooloo mi. réewi Gambia àddina bi yëpp lay waxantool ngeen man la seen xarit seen mbokk Dahaba National People's Party Dahaba mu président Adama Barrow ah, teg leen seen baaraam man la ak seen ah, télévision bi nga xam ne moo nekk Gambia télévision bi nga xam ne nay leer rek la nekkee muy Sahel Network TV bi nga xam ne mu si Gambia te doomi Gambian si ñoo ko moom teg leen seen baaraam ñu ngey ñëw jërëjëf.